waaw mbokk yi ñu ngi fekk Alaaji Matar Ndiaye moom moom mu ngi compter xaalis bi xam naa rédicat mbër yi ci la ne mais xol bi xawul neex trop Matar maa ngi leen nuyu. waaw bés maa ngi lay fay bu baax a baax. di la ziar di rafetlu sa liggéey ci làmb gis nañ ni que mbër yu bëri yaa ngi leen di encadrer yaa ngi leen di manager et puis am nga de très bonne relation ak CNG loolu lu koy maye. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk internet di ah d' accord comme surtout CNG la dinaa sawar ci wax ci nag wax dëgg yàlla ndax li tax ma ci sawar rek euh, mooy ñoom suñuy collaborateur lañu xëy na euh, làmb dañ leen fee teg pour ñu joyantiwaat ko defaraat ko mu am beneen xar kanam mais gis nañu ci combat Ada ak Zarko ni mu demee euh, suspension yi rafetluwuma ko diis na donte duma ànd ci li xale yi di def mooy li may wax ak directeur administratif léegi nii parce que mbër bi comme ñoom dañ ni on mes 30 minutes. Ce baba, maintenant, il le suspendre de 6 à 3 ans. Avec sanctions financières, aussi, je ne sait pas. Je ne sais Mais, si on est 31 minutes. Là kon ya 2 minutes le eppal ndax 30 minutes moy barem bi 29 minutes du nga ci 30 so eppalé 2 minutes zar ko ñu ni 32 momit kon 3 minutes

dañ ko ajoon dañ ko baal pour mu bëri donc dañ nekk ay mbëri récidiviste ci côté jalgati règlement moo tax ñu aj leen un an. non bu ñu leen topp ci seen passé bu ñu leen di aj kon ñu aj leen ci leneen ñu def beneen notification ne dañ leen aj ci leneen mais fii li ñu leen ajee li ñu notifié ci dépassement préparation mystique lañ leen lañ leen ajee kon bul wax ne dañ leen topp ci seen passé fii amuñu passé ay xale lañ comme tout le monde président Bira këram njabootam am na lu ko ci neexul. te da koy gérer ay doomam lañ du leen génne du leen sànni xale yi mënuñu ni une année nga aj leen ko ñoom ñii muy président bi daal ak ñi mu àndal ñëpp kuñ ci woon fi ngay liggéeyee dañuy lay téye une année boo defee faute te ñëppay jalgati fii àdduna ñu ne parfait comme ni koy waxee kuñ ni ci woon boo defee erreur ñu aj une année doo liggéey doo fayeeku mais kon musiba am il faut ñu xam ne xale yi seen i doom lañ seen i jarbaat lañ li ñu mën nag man au premier temps comme li am am na. booba léegi am na ñu may woo site internet yi ñu bari ñu ngi may woo pour jël ma bëgg sama réaction ma leen noo nañ moo may ndax suñuy proche lañ te dañ leen di jàppale ci seen liggéey mais ñu liggéey ñu CNG licence bi ñu jaay jaay ñu ko pour ñun ñu nekk di liggéey ak CNG liggéey ñu ak ñoom ñun avocat mbëri la ñun ñooy interlocuteur mbëri ñun ñooy nekk ci diggante mbëri ak CNG ñun faruñu ak CNG donc mbëri lañ faral donc leen nag liggéey bi ñoo ko bokk il foo ñu collaborer pour rafetal mais buñ jël yat bi fimu gëna a gëna ñu nañu Zarko un million trois ci reliquat millions yow ñaata lañ la dagg ci ce reliquat. voilà ci ci bi nga au niveau du CNG de lutte à part assurance bi ndax assurance bi donc dañuy wax ni man nañ euh, 860 000. 2 millions yi nga déclaré 860 000. est-ce que vous pouvez ñu ko Ah, Oui, je mën nañ ko faram bien sûr ndax mi ngi dépassement de préparation mystique 60 000. tous tous 6 000. non non attends euh, dépassement de euh, dépassement de temps de tous 6 minutes minute bu 10 000 60 000. dépassement de préparation mystique 31 minutes bon finir de 10 minutes il y a qui minute bu 10 000 lañ 100 000 10 minutes top minute 20 000 200 000 10 minutes top minute 30 000 muy 300 000 ak chaise yi nga xam dañ 200 000 net APE que 1 million 100 000 donc 900 000 900 000 40 000 donc 860 000 mais loolu aussi dafa ëpp métier. te day tax tamit ñun du ñu may courage ñu koy jël xaalisu mbër yi di ko déclaré fii. mais dafa mel maa ngi jàkkaarloo bu Zarko itam Zarko. Zarko am na bëgguma man amoo bëgguma amoo droit di communiquer ci euh, ay kii am na jot nga ménagère peut-être mën na la defal détail mais ce qui est sûr mooy yëf yi dis na jaaduwul. lan nga prévoir def mu toll nii ndax da ngay appel wa ilaa da ngay demander wala lan ngay def. non li ma prévoir daal mooy comme ñoom suñuy collaborateur la ñu am nañ ay relations yu rafet. ndax plaider nañ fi sax man mi ay am na ay mbëri jàmbur yoo xam sax yoruma leen dem nañ fi ay njombe ma plaider leen ñu baal leen ndax xëy na sama comportement kon man teel na may wax naan fii la xari jaar ak fii la nagi jaar l' essentiel léegi rek maa ngi wax président Bira maa naan ko man yow am nañ confrontation après man dinaa dugg ci bureau mu waxtaan ak moom njàmm am na lu ma waxtaan ak moom maanaam ci sama xel ñoom xëy na mën nañu dem euh, revenir à la raison comme ma la ci li ma wax ne kat ñoom li ñuy jàll yi vraiment dépassé le temps bi avons mais ni kon nañ def sanction bi ndaw lolu nak après ci kaw loolu ñun ñu nous xol ba xam loolu war na mëna nek wala wala war circulaire la nañ ko et puis man li d'accord bien avant loolu dañ ko waroon na li ñënt bi gis deux Bombardier ak ba ci ni xëy na ci lañ jëlee décision yi chaque combat Balla kay bu jàllee ñu jël ci ay décision mais ñoom du boy yi ñooy payer les pots cassés vraiment décision bi nañu nag dëgër ba bu fekkee dañ koy maintenir wala dañ ci dëgër yeneen mbër yi ñuy woowee mbër yi mag bu ñu ñëwee bis bu ñu defee lu mel nii wala lu ko daan ndax ñun dañuy toog dañuy yor suñu chrono dañuy xool lépp dañuy superviser lépp mais l' essentiel bëgg ñoo xuus ci wax ji bëgg ñoo sore mais daal yëf yi metti na. Lama bujang, boleh boleh, ini nama.